tamit yàlla dogal ngeen nekk ay journaliste ñun ci dëkk bi la ñu dëkk lu fi xew xam nañ ko ñun suñuy wax waxu presse bi waxuñu ñu ngeen xam ne nii xam ngeen bu baax lu askan bi dund da ngeen di liggéey ba weer dee di xaar salaire su ngeen di xëy bu dem liggéey kenn du leen kenn du leen nettali lu xew ci taxi ci ci clando yi ci oto yi ak yu mel xam ngeen bu baax lu xew ci lu xew ci dëkk bi ak lan la Sénégalais di di di dund wante ñu ñuy waxal suma baat ci kaw mooy ñu ñuy woowee les patrons de presse dama ne presse amul droit parti pris mooy farfarloo farfarloo presse parti politique la man mën naa am sañ-sañ ne parti politique la parce que la presse traite de la politique nguur bi fi nekkoon ak président Abdoulaye Wade

Je vous citerai vous tous un par un, nom par nom. Je donnerai des preuves que vous avez marché pour prendre des enveloppes. C'est la vérité. Vous n'êtes même pas capable de payer vos personnels. Et pendant ce temps, vous vivez dans des châteaux. Vous mooy dëgg dama ne weer su dee des ce fay personnel ses caméraman fait cette seen fait yi journaliste. seen journalistes yi dañuy taw ba dugg Il y a du publicité yi y a ci journaux yi di loolu ni ngeen taxaw fii jot ay kër yu nga xam ne ni suñ ko doon xaymaa ay milliards la ngeen di dugg palais ñuy dagg ay suuf di leen di ko jox ngeen foog ne ñun xamuñu lu xew ñu leen di daggal ay enveloppe di leen di jox weer bu nekk ngeen bëgg jël nag askan wi bëgg leen noot jël seen télé jël seen rajo jël seen journaux yi bëgg ñu noot ñun du ñu ngaak te lu xew ci dëgg bi xam nañ ko te di leen ko wax caméra yi moom ngeen jënd wante moomu leen caméra yi askanu Sénégal moom caméra micro yi yéen yéen jënd micro yi naam nangul nañ leen ko wante micro yi askanu Sénégal ñoom moom micro yi loolu mooy dëgg moo tax ñu ngi leen di ñaax yéen ñu ngeen xam ne ni vous êtes des journalistes bu leen nangu kenn noot leen parce que ci askan bi ngeen bokk dama ne lu askan bi di dund moom ngeen di dund yéen